jërëjëf Serigne Mbacke Mbaye mbokk yi jërë ngeen jëfati ci ànd bi ngeen daan ak rajo Dunia 105.0 kaddu gi di bàyyeekoo fii ci studio Serigne Falilou Mbacke ci tax ko bi nu duppee maam Thierno Birahim mbokk yi ñu leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax ci ànd bi ak kóolute gi nga xam ne nii am ngeen ko ci rajo Dunia ci micro bi seen mbokkum talibé Cheikh Amar Serigne Mbacke Mbaye nekk ci wàllu xarala gi. ñu fas yéene ànd ak Serigne Moustapha Diop Kokki ni ñu ko baaxoo di def rek ci seen émission pencum Sénégal Serigne Moustapha ñu nuyu la bu baax a baax waaye la nga nuyu ak mbokk auditeurs yi.
asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. fattaahu wahabu ya rasaqu ya maliki lifta wahab liya warsuqni bi kunil aana dayqi azila ajilan bil bishri mahmadin حتى أقيم لدين الله أركانا يسير جوعي لتوبة واحمني وقني أذى الورى وتتب لسما إسكانا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك لرب من شركه بانا أجب وصلي بتسليم على سندي محمد وتهب لي فائقا بانا سبحان ربك رب العزة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu nuyu ñëpp di ko dale ci sëñ la ji baara di ko ñaanal suñu boom dëgëral ko lool di ko ndokkeel yi nag ci teewaayu njëriñ ba teewaayu bu am solo boobee nga xam ne teew na ci na ko ca kanam dongaam yàgg ak rakkam yàgg doomam ya ñëpp daal wax dëgg yàlla big nañ lool lool sax lool di ñaan suñu boom gën ko dëgëral lool ba lim yéenee liggéeyal wuy jur yàgg maam ya lépp suñu suñu borom borom mu sottil ko xam naa ci kon teg ci si it rakam ju baax ja sëñ Seex ma ti lay mi nga xam ne fekk teewoon na moom it jëriñ ja di yàlla taxawaay bu am solo lool lool sax ñëpp ñëpp pour daal big nañ ci nañ si ginañ mu si ginañ si gin wu am maanaa di ko di ko ñaar sun boom moom it réel ji moom ji dëgg dëgg dëgg gëral ko ba lim bëgg liggéeyal boo juree ak maam yi lépp sun boom may ko ko ci xam naa ci ci kon teg ci si Ahmadul Muxtaar moom moom mi nga xam ne moom it fekke woon na jotaay ba te te mooy day mbill ga waaw yaakaar naa siggi na maanaa kilifaam yi siggi mooy yi siggi ñëpp daal siggi nañ ca teewaay baag ak jotaay ba xam naa kon kon ci nañ ko baaxoo def rek kon sëñ Seex Madina moom moom it teewaayam bu ba ci ci am solo lool ndax teewaayu bàgg rek kam ya ñëpp ñëw nañ ñëwin woo xamante ne daal wax dëgg yàlla mucc na na ayib ñaan ñaanal ko ñaa ñaanal rakkam yooyu suñu boom dëgëral leen ba lañ bëgg a liggéeyal seen wujur ak seen seen wàll lépp suñu boom ci ci motali ko nañ ko bëggee xam naa ci ci kon sëñ Thierno Ndou Fallou mi nga xamante ne moom mooy xalif foofu si maanaam say mënaat moom it di ko ñaanal suñu boom dëgëral ko ba li bëgg bëgg liggéeyal wajur yi ak maam yi lépp suñu boom boromotali ko ak bi fàtte it si moo du abi jóob mi nga xam ne mooy rekk soxna na fa sàmba jóob mii nelaw maanaam bu bu bu yeggut te nga xam ne moo desoon ci waa barsàq yi xam ne ne waxtaan wi sax ci foofu ceeta na na fi la jëm moom ci ci kon di ko ñaanal sunu woom dëgal ko ba ba ci tëwéral tëwéral ko bu baax a baax ba lim ba bëgg liggéeyal ci wajur yi sunu borom mottali ko te xam naa ko ci ci kon teg ca sunu xalifa bopp ba ci muy sëñ ta Mortala Diop mu xalifa bopp sëñ Mor Njekk Diop di ko ñaanal sunu sunu boom dëgal ko ba lim bëgg liggéeyal wajur ya lépp su ci war bi ci mottali ko te xam naa kon see xaadim maanaa comité de pilotage bi nga xam ne ñoo yoroon liggéeyum njëriñ ba di sant ñëpp ñëpp rek xam ne sëñ xaadim naar dañ ko xam sëñ xaadim sëñ ba kesi soxna lu moo ne woon ci bopp ba gaa yi ko ko ca jiital wax dëgg yàlla daal lépp yéwén na ci xam naa sax maa ngi xalaat alal ba jiñ jëm ci commission scientifique bi nga xam ne sëñ Moustapha Diop ci xuj jëley sëñ Ahmadou Ndiaye Ngiraan sëñ Mbacke Lo Mouhamed sëñ Mbacke Lo Neyrul Maram ak sëñ Cheikh Bey sëñ Cheikh Ndiaye maanaa subhanallah ak sëñ Moustapha Diop maanaa directeur général lu lu école ci jigéen defaan ma ak man mii ak ak sëñ Xaali Jaxate ñoo jiite woon loolee maanaam danañ jéem ba toog fii am ndaje moo xam ci jaaxlal ba ba joo xam ne ñu jéem a waxtaane defaat synthèse ba xam la mbir yee fa mu kii yeeg ak daal ci lañ ci war a jëm ëllëg incha allah.
ak it discours bu sëñ sëñ bi de waroon ngeen cee def waxtaan wu yaatu.
waaw incha allah yaakaar naa boobu.
discours bi de yaakaar naa ne jar naa.
waaw waaw loolu moom loolu moom xam naa.
jar naa.
jàngat moom.
jàngat de.
waaw jàngat waaw dëgg yàlla moom moom moom.
jar naa jàngat de.
waaw waaw moom am na solo lool. xam naa moom moom kay dëgg waaw jar naa jàngat daal.
waaw waaw.
danañ xool rek nu ñuy organiser jàngat boobu.
waaw ci incha allah teg discours bi jàngat ko.
waaw tomb par tomb ndax. lu am solo la.
na yàlla na yàlla te it mën nañu dox ak moom lu lu yàgg wala lu sori. wala Ok.
boog ba yegg fa ñu jëm sax.
Ok.
ci li ma yaakaar Na yàlla walaay na su yàlla.
fekkee ne kenn ku ci nekk dégg na la nga xam ne moo ciy sa wàll.
Waaw.
te defe naa ne kenn ku nekk nag am nga ci sa wàll.
na yàlla na yàlla na yàlla.
sëñ Moustapha kon euh, ñu sant la bu baax Euh, tey wax nga fi yaa ngi fas yéene waxtaanee nag ñu jara waxtaanee ak it euh, ñoo xam ne it ñenn lañu ci waa kër Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ok yow ba sàq yi.
muy waa Barsaq lan moo tax sax ñu- ñu leen di wax loolu ok lu am solo. ci ndax yaakaar naa tur woowu.
Mm.
doo ko digg fenn déedéet fudul ci kër borom Tuubaa xanaa ndax te kat moo ne kat amoon na ci démb ja.
ah amoon na ci démb ja waaw muy ci mooy ci yonent bi be- beli seetu salaam soxnaam ya.
Mm.
ay waa ba sàq lañ woon.
Chut.
sunu borom ci moo digaloon saxaaba yi ne bu leen jëflante ak ñoom lu may illaa min war a ihijab lu may aw mbañ gàcc Hmm?
loo nga xam lu- ma- maanaam mbañ gàcc ci woowee loola moom la Sëriñ si Tuubaa def muy barsax
ci dëpp rek la moo doon na yeneen dañu doone déedéet ah kay kay bàyyiwul rek daral bayu te te Ah.
te it Ah.
ba- barsax ci ci arab Waaw.
baat bi li mu mu mu signifie Hmm.
mooy maanaam léegi ab frontière barrage boo xam ne dafa dox diggante ñaar yu niroo ca bokk na loolu la Barsaq di di di di di di firi ci arab nga nga nga xam ne soo demee soo soo demee ci ci ci ci Afrique du Sud am na fa am na fa am na fa barab boo xam ne ci géej gi maanaam léegi ak dex. fu mu taqaloog ak géej gi.
waaw nga nga xam ne te laalante wuñ
waaw ndox mu neex mi ak ak ndox mu géej mi du duñ jaxasoo déedéet te te mën nañoo taqaloo. nga nga nga xam ne bët bët bët day gis ne mel ne taqaloo lañ.
Waaw.
fekk ne laalante wuñ.
benn bu ci dugg ci sa morom benn loolay ci arab barsax bay na xumaa barsaxun lay xiya am mbursure ñaari ndox yoo xam géej gi ne waaw bokkuñu.
Bokkuñu.
waaw parce que géej ak fleuve du ñu benn.
bokk bokk na ndox ya du ñu benn.
du- duñ benn te géej moom lu bokkul ci moom rek.
da- da koy gax maandu te nag day daal di feeñ foofu de kenn ku ci nekk yaa nga taxaw fa nga war a taxaw rek.
ci ci- ci kon xoolal kon jigéen ak góor maanaam jigéen ñu ñu ñu ngi ko biddee ci góor Hmm.
ma- maanaam cellule bi bi nga xam ne ci lañ juddoo benn la waaw.
bu- buñ tàmbalee déformé ci ci ma ci yuru ci gaa yi kenn du xam ba xam góor góor lay doon jigéen maanaam nga- nga nga xam ne ñoo bokk ne ne- neen nu ñuy formé woo ci ci ci ci njëlbeen waaw.
waaye nag am nañ différence kon barsàq bi dox diggante góor gi ak jigéen ñi
donc frontière.
frontière taxalante.
Taxalante.
donc foofu la tur yi jógee.
ci mi ko lo lo- lo am solo la loolu moom lu jaral leeral la ndax euh, sama maas gi bëri na ñu ngi dégg waa barsax yi.
Waaw.
te xamuñu lu ko waral.
Ok.
ak it euh, indi gi nga ko indi ne.
Waaw.
euh, waa kër euh, Seydina Muhammad sallallahu Sallam.
alayhi wa sallam.
Waaw.
sunu borom am na lu mu ci digle.
waa kay te it euh, ki nga xam ne nag moom moo ñëw rek pour wéyal la nga xam ne moom la sang bu tedd bi daan def.
ngoog kooku it moom it waa kay foofu rek lay jaar.
Ko- kon muy ñu am solo ñoo xam ne nii. euh, ñu jara waxtaane lañ. waa ñooñu ñooy ñan.
ñooñu maanaam maanaam ñooy soxna yi jent bi xam ne maanaam le- ma- maanaam léegi ñooy ñi nga xam ne ñoom la tun ah tun waa ji waa kay waaw tey- ba tey ba tey- ba tey moom la ba tey moom la kay ba tey moom la kay yàlla ba tey moom la démb ci waaw waaw kay yàlla yàlla amuloo wuute de.
wallahi aha ñoom ñooy soxnay sëñ bi aha nga xamante ne ñooy ñooy way juri waa kë- këram yii parce que ñooñu nag eh, maanaam sëñ Tuubaa njaareem da da leen a wut wutal barab goo xam ne kees goo xam ne maanaam góor ña duñ fa dugg nga xam ne. xanaa xanaa kay kenn ku ne day maanaam sa sa càmmiñ. sa càmmiñ sa rakk mbaa sa mag. ju góor autorisé mën na faa dugg. nga xamante ne. maanaa maanaa naa lislaam ji li nga xamante ne moom moom la sunu borom wax ci waxoon ci waxoon ci ci ci soxna na yonent bi ne ko kat maanaa léegi nañuy aw aw mañ gàcc ndax ndax ndax man naam am na koo xam ne xolam ba da- dafa tilim jigéen ña buñ buñ leen di gis kon ma mën naa mën naa mën naa indi dara dëgg la.
mu ne ko it bu bu buñ dee wax jigéen ña nañ koy dëgëral ah nañu dëgëral seen ci kàddu.
ci ci ci kàddu yi ndax balaa ki nga xam ne xolam dafa tilim muy am lu lu lu Muy yëg.
lu kooku nga xam ne ko nga xam ne kon ñu ñu maanaam maanaam ni nga xam ne moom la lislaam bëgge woon ci kër yi nga xamante ne maanaam këruk ab sëriñ këruk ku ma di doon li li gënoon mooy kees ya noonu noonu ko noonu ko bu jëkk amoon ay kees kees.
nga xam ne keesu donga yi day am mu ci mooy jëkk keesu sëriñ bi topp ci keesu jigéen ñi nekk ca ginnaaw nga xam ne foofu moom.
kenn ba lu ñu làq fu làq yeggoo.
noonu la fu làq yeggoo.
rek la da- da- da tax yow ma- maanaam ak gan ak donga bi Hmm.
maanaam mënuñoo am soxla bàgg ci jigéen ñi déedéet déedéet. pour traverser foofu yëpp.
loolu loolu ci- ci loolu nga xam ne sun borom mi mi xam maanaam moo moo bind moo xam alaa ya'lamu man xalaqa wa huwa latif xabir sun borom nee na kii bind xanaa moo gën a xam moom moo xam suñu tempérament maanaam ci ci xam ne ne kat góor ak jigéen bu bu ñu bu ñu jaxasoo na si si tubaab waxoon ne góor ak jigéen bu ñu teewee ci ci barab maanaam day mel ne ci xalu ndéef ak ak nee na mboo ngelaw say dox sa diggante ba mooy ci mooy iblis sa sa nga xam ne moom saa bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu teewee rek. sa sa daay tàmbalee ràpp. ñoo ñooñee. bo bo bokkoon na ca seen melu lokaan wa dañ daa mëlfewu.
ah man foofu lañ naan man Man foofu.
foofu lañ daan solo.
waaw maanaam ci maanaam man man am naa ci maam maam jaxaat rek so so maanaam ak soxna Aminata Diop ak ak ak soxna Nafar Samba mii fi mujj.
ñu fi mujj nii yàggul ndeysaan.
waaye waaye maam jaxaat laaj naa ko maam jaxaat moom laaj naa ko maam jaxaat amoon na fa sax ab bant waaye dafa dafa dundul.
ndeysaan.
laaj naa ko ko ko ko booba ba- ba jigéen ñi nii ñuy solo laa ko doon laaj mu ne ah loolu ñu sax de bu ñu ko gisee dañuy dañ jaaxal lool ndax day sëñ bi de moom moom jamonoom xewtoon dëgg la.
ñoom dañ daa ëmmal fawu ñu daan man foofu.
ah nga xam ne boo soloo ba ba noppi Hmm.
te te foofu it da- da- da- danañ wax danañ wax danañ wax jigéen jur nga ñoom ma jigéen ni africaine booba jigéen ni bawal waaw.
seen civilisation ba boobu fa mu toll mooy jigéen day wodd ba noppi Mhm.
cër yi ñu woddoo léegi waaw.
bu noppee jël si sirop rabal teg ca kaw sol ab ci ci kaw mi sol ci kaw mi mi mi- mi sol la- moom la go- go- gone yi mujj naan ko ko ma ci mamboy ah bi de waa camisole la waaye mooy seen robe yooyu ñu wax mam boy.
mamboy sol ko teg ca daraa ah.
musóoru soo noppee jël sirop dënk teg ci sa kaw
wuu loolu de ku ko def la woon ndéygéey bi wala Layla ba est-ce que doo xam fii ci biir bi comme ça.
te te te te fi ñu toll Hmm.
ci science bu bu tàngee jër la la ciy musal solal lu diis boo ko solee du du tàng waaw parce que seetlu naa ne sax même euh, mag ñi.
waaw dañ daan sol ay ñaari yére ba ñetti yére.
loolu la kay moom wax nga dëgg parce que ngelaw tàngooru li ci biti lay jógee.
ci bi ci jógee ah doo am accès ci yaram wax.
mi mi mi ko mi ko tandis que boo solee lu woyof nag.
waaw xam nga fi tollu maa de sa ci yaram bi bu dee ñaari yére so ne mu mu mën a ci kawam diggante bi day am espace day féex ma diggante ñaari mbubb yi espace la.
ngelaw la bu loolu aération lay doon aération lay am
Ah, aération lay am de day am aération nga xam ne sol yére yu bëri.
waaw euh, mën naa la musal sax ci tàngoor.
tàngoor wi tàngoor wi tàngoor wi fi tollu na- naar yi de dëkk ci dëkk ci désert bi tànk- ci tàngoor yoo am.
nee ñu soo bëggee bu tàngee naanal lu tàng
ah boo naanee lu tàng da ngay féex
bu ko defee température bi ci biti da nga koy adapté ak bi ci bu wér biir.
bu wér
waaye bu tàngee parce que booy booy naan lu sedd. da Da ngay nga tàng.
ngay naan rek. di gën a tàng di gën a naan rek.
kon moom kooku ci ci kon kon moom col kooku lan lan solo ñoo kay.
te tey tey jigéen ñu baax ñëpp it jamono jooju moo ñoom la noonu noonu noonu noonu parce que boo gisee seen euh, yenn portele yi sax.
noonu la solo waaw ñoom soxna Mayek.
waaw.
ñoom soxna Mousleek yow koo ci gis seen portele yi waaw macha allah.
noonu la solo ñoom te dañoo silvissé woon ba dee ah.
déedéet am am am kay maa sax su su rek sax ku ku mel ne soxna na may Kubra. moo mu mag ma. maanaam am na ci leneen loo ci loo ci gis soxna may Kubra boo boo ko gisee jëmm ji da kanam gi dafa ñëgg. maanaam amul mbóosóor ba ba su ko jigéen su ko góor gisee xel ma du du du dem ci lenn lu muy góor la.
loolu de bokkoon na ci li sëñ bi doon wax nañ dëgëral seen kaddu ya.
su suñu borom loolu afaan ko woon moo ko wax ni tamit ne ko nañ dëgëral kaddu yi maanaam seen mbóosóor ñoom amuñ ñoo ñoo ñoo ñoo mbóosóor soxna na may. kanam gi daa mel ni góor soxna moom yi mi mi fi mujj. maanaam mi ngi daal sol yëri bay la. maanaam bu noppee kaa musóoru ba noppi jël sërub dënk. teg ci ci ci kaw. ka ci ci cërub kaamil ak kurus.
nga xam ne ñoom seen bind ak seen seen seen seen taxawaay rek am jàngale la.
am jàngale la te jëfaguñu.
te te te jëfaguñ ma ci maanaam soxna na na na moom yi. seen tubaab la moom la niru moom. te te dafa nee na sax Sëñ Xaadir moo ko niru waaye man soxna moom yi gën a niru Sëñ Sëñ du Xaadir. moo moo moo moo ko gën a niru si doo fop moom dafa dafa góoree. boo xoolee photo maanaam soxna wuy jur si ci maanaam sëñ Saliou soo gisee sa photo bi. ci am na na photo bu buy jaay. photo ba comme góor. nit maanaam kanam gi dafa ñàkk a mbusur ñëgg rek.
ñàkk caxaan.
ñàkk caxaan. loola loola loola lu lu moo doon doxinu mag ña. maanaam soxna na na yooyu ne ci ci ci ne ma ko waxee woon ne ne ñoom dañoo taqale kees yi keesu doo nga yëf rek keesu sëñ bi seen kees ci ginnaaw booba moom ku dul seen càmmiñ misaal tey sa ceex fattak ku jóob moom mu nga xam ne soxna na fattak ku jóob ndeyam ndeyam moo jur ndey sëñ Murtala soxna Fatimatu Jóob soxna fattak ku jóob moo doon maanaam léegi kilifa jigéen ña kër gi moo ko yëfoon maanaam nga xam ne Sëriñ Tuubaa moom moom lay waxal dana ci kanam dana dana am ci ci xisa boo xamante ne ma ma ci ci mam jaxat su koy nettali danga danga da nga cee seetlu ne Sëriñ Tuubaa moom lay waxal maanaam maanaam bi bi nekkee na ci noonu maanaam ci maanaam seen dundin wa Sëriñ Tuubaa daa ci wuleen jox ab lal bu am pajaas pajaas pajaas déedéet lu mu leen laaj takar takar mooy la la lalu dénk képp loolu dénk yi. loolu ñu ko tëdd de.
moom bosone jóg soo bëggee gaaw a doyal nelaw sax.
soo bëggee loo ca tegee moom da nga koy wuti. ci misaal soxna Awa Buso way juru sa sa sëñ Fallu sëñ Tuubaa da da da ko mbas saroom bu muy liggéey ab pajaas. maanaam lu mu teg ci takar ga. sëñ bi ne ko sëñ bi toll ak moom ci seng bi fëgg na ko ko ko toll foofu mu ne ko man man naw bu so mu ne ko mu ne ko mu ne mu ne ko looy def noonu mu ne ko damay wut lu ma teg ci ragar gi sëñ bi sëñ bi ne ko ko waaye ndaw yéen ñi saña wut lu ngeen di néggandikoo ne nelaw nee na soxna naw bu so nee na sëñ Mbàkke Njaay rahimahullah moom sa Njaay Gédé moo ma nettali loola ne dafa xëy bis ak ànd ak ay gone ñu dem di yelwaan ci soxna Awa Bousso di ko mu ne doon soxla ñu ñoo ko noonu dañuy yelwaan mu ne kon kaay leen ma sarax leen waxtaan ak yéen ci sëñ Tuubaa nee na si nee na nee na sëñ bi ne ko ko ci ne ko ko Awa Bousso kaay ma ma ma ma ma ma laa biire la bala ngaa mel ne doom ju amul nijaay ci mbedd lay déggee doom ju amul nijaay nijaay ci mbedd lay déggee waaw foofu it koy ne nan fi taxaw tuuti. ndax it kon maanaam responsabilité nijaay ci doom.
lu am solo la ndax nijaay dafa mës a am cër. ci biir famille.
famille
am na rôle bu mu fa war a joué moom.
ci am na ci am na ñoo xam ne nijaay. ci wolof li muy firi mooy nikk jaay maanaam koo xam ne sañoon nga ko ba ba amoon yitte ju far mën nga koo jaay rek kenn du la wax wax ci ci ci wax dara waaye nag. moom moom lu mu doon ci yow jarbaat ñu ne jarbaat mooy su amoon problème jar na nga jaay sa baat ngir ngir problème ok
waaw ñaari baat yu am solo la ok signification bi lu am solo jaay waaw ak jarbaat jarbaat jar na baat kii moom yu baax jar na maanaa léegi yow jaay sa bopp jar na dee
gis naa séeréer yi ñoom euh, mel na ne loolu ñu ngi koy.
Fonk.
dundee bu baax a baax a baax dafa mel ne euh, daanaka ndijaay ak euh, jarbaat.
di maanaam ñoom di jarbaat bi mooy doon Voilà.
mooy Mooy doon ndijaay ji.
waaw moo ko Foor na.
loolu loolu la di dem maanaam ñu ñu, euh, ci- ci- ci ñoom ma- euh, si- si- man na séréer moom mooy civilisation dëgg africain africain pire Pire waaw.
Cheikh Anta Diop nee na séréer yi ñu ñoo doon maanaam euh, ñu ko waxati égyptiens yu jëkk yi
Lañ leen bàyyi woon lu nekk ñu ngi ci ñoom ba tey.
ñooñu moom leen kon de euh, mu koy laabiré.
moo ko laa di kon ñu bàyyi xel ndijaay yi kenn ku ci nekk rek.
Ok, xam ok.
ne tey.
Waaw.
euh, sa rôle mooy.
Waaw.
di laabiré say jarbaat bala Ok.
ñuy déggee ci mbedd.
mi ko amaana ñu dégg loo xam ne nii.
waaw kay euh, du leen jëriñ wala du leen neex ci mbedd.
mi mi ko daal di daal daal dina ko awa buso mbaa du ngeen bàyyee liggéey bi fere yi mu ne ko ah mu ne ko ah buñ dee soq ñuy foofu buñ dee wal ñuy ñuy mooñ noonu wa- wa- wax ko noonu s- s- sëñ bi ne ko ah ki- kiy fay de moom ñi- ñi- xamut ku liggéeyul
xamul ko liggéeyul.
xamu ko waaw mosuma gis kuy fay nag te xam ku liggéeyul banque bu ne de ku liggéeyul ba yore dégg def da ngay fayu ci mu ne ko kii fay xamut ku liggéeyul ana kii fay su borom bi lu am solo la
léegi kon bu fekkee ne dañoo bàyyee liggéey bi fere yi ok bu fay jotee kuy fayu ok frais yi
kon loolu day wéy ba ci ñi nga xam ne nii ñu ngi yore jànk seen kër loolu ñooñu lay wax de ñooñu lay wax Ah.
la ñooñu lay wax de soxna Abu Busa xam nga soxna Abu Busa yéen lépp yan ko ko rek de soxna Abu Busa dafa yor jàng ci biir kër gi C'est- mbooloo frais yi dama tax frais yi mbo gone yooyu fa nekk lay wax lu am solo la lu am solo mbaa la du ngeen leen bàyyee liggéey bi liggéey bi xa- xa- soxna soxna soxna nee na ko Ah.
bu ñu soq ñi foofu bu ñu nangam Eh, waaw.
waaye mu ne ko si si bi nag leeral ko ne ko nag kii fay moom daa xam ku- ku liggéey ku liggéey daal la xam xam ci- ci ne ko aw buso lu yàgg yàgg bu la kenn tee jaamu mu mu yàlla ajjana day borom bi ci dugalal ku ku- ci ci ci ci- ci ku ko jamoon
borom àjjana waaw du ci dugal mukk ku ko jàbbul
Kon kon nag- sëriñ bi mooy fàttali mooy fàtte soxna aw buso de te te léegi seetlu foofu seetlu discours bi waaw
sëñ baa ngi wax ak soxna aw buso ndey sëñ sëñ Fall sëriñ Fallou
ci léegi maanaam seetloolu ne sëñ Tuubaa waxu ko fi lenn lu yomb
déedéet li waxu ko fi lenn loo xam ne it maanaam wuute na ak xel nga xam ne tey nit mën naa jàpp ne eh, jege sëñ Touba privilège la boo xam ne nii dara du la war a yóbbu. ah.
lu am solo la lu am solo la foofu sama xarit boobu ba yàlla na ko ko yàlla dolli leer sëñ Moustapha Lo Abdourahmane ma sama wax ne ma eh, am na kenn ci waa Bachaq yi ku mas a dem ca Jaba marché ba njëriñ dikk di waxtaan ak jigéen ñi ne na